hôpitalu Touba inauguration bi mois de mars bii nga xam ne moom la ñu génn moom lañ jiitu réew mi di Macky Sall waxoon ne daf koy inauguré te ba léegi nii xamuñu lan moo tax inauguré wu ko ñu bari nag ñoo ngi sàkku Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé indi ci ay leeral ndax président Macky Sall bi mu ñëwee moo ne dina ko inauguré ci mois de mars ci kanamu xalif général des Mourides waaye nag li nga xamante ni tey jar na askanu Sénégal xam ko ndax bëri na loo xam ne ci mbirum hôpital bi dafa lënt ci yenn xel yi ndax ci atum 2016 président Macky Sall ñëw na Touba daal di wax ne hôpital bi xayma nañ ko ci 40 milliards xayma nañ ko ci 40 milliards 2016 loolu la waxoon mën nañ leen a indil li nga xamante ni tey moom mooy euh, video bi ci kanam màggal gi nga xam ne moom la ñu génn ci 2020 bi président Macky Sall mooy image bi ngeen di gis ni mu takk ay masque ni xam ngeen ne li yàggut ci coronavirus bi la mu wax ne hôpitalu Touba bi 32 milliards la maanaam 2016 dafa ne woon 40 milliards 2020 mu ne 32 milliards kon différence bi am na lu toll ci 8 milliards loolu nag ñu bari sàkku nañ ñu indi ci ay leeral waaye tamit ministre de la santé war naa indi ay leeral ci lan moo taxoon moom mu dem visiter li nga xam ne mooy chantier bi maanaam hôpital bi génn jàkkaarloog presse bi ne mois de mars lañ koy inauguré te ba léegi nii dara amu ci. vidéo bii ngeen di gis nii mooy 2016 la ci màggalu Touba kàddu yi la président Macky Sall yëkkati woon Abdoulaye Mbaye Peex moo ko doon jottali mu ne hôpital bi 40 milliards la ñu teewlu kàddu yooyu. xam ni tey fii ci Sénégal ginnaaw ndakaaru di capital ne Touba ëpp doomi aadama yu fii yewoo ne kon aaje woona ñu taxawalaat fi l'hôpital bu mag a mag bu mucc ayib itam ci fànn yu nekk ne lu ci ne président ne dana ko taxawal taxawal bu am solo ab hôpital bi 40 milliards la ci def yaakaar naa ni bu pare waxuma la Sénégal waaye adduna bi yëpp daañu mën a ñëw fajoo si Touba. vidéo bi tamit mooy màggal gi nga xam ne moom lañu génn ci coronavirus bi président nee na 32 milliards déglu leen vidéo bi. waaye nag bi gën a rëy bokk tey ci hôpitaux yi gën a xaram ci biir Sénégal mooy bu mag bi muy defaram incha allah fii weer mois de mars la ñu gàttanu ñu ko. boo joxee tur bi ñu si war a def danañ dana jël décret bi ci war ñu créé hôpital bu mag boobu ci Touba nga xam ne bu paree hôpital de niveau 3 la ci Sénégal mooy hôpital yi ëpp mandarga kenn dootu war a mën a jóge Touba di wuti euh, pajukaay feneen Dakar wala feneen fanweeri milliard ak ñaar lañ ci def ci suñuy koppar ci boobu la kon mbokk yi lan moo tax inauguré wuñ hôpital bi ci mois de mars bi ñu génn ak lan moo taxoon ñu wax quarante milliards ba mu yàgg ñu wax trente deux milliards jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm.